ñu ngi fi sant yàlla bu baax a baax. maa leen di eh, maa leen di nuyu di nuyu diaspora bi di nuyu Sénégal yëpp di nuyu tout le monde di nuyu sama mbokk Haalpulaar yëpp kala bi yow mbii mi maam calminaam gis ngeen ko noonu la nuyoo ñu ngi ko fekk eh, mu yor gitaaram di def lu neex ah moom Alioune Guissé ah, vraiment kontaan nañ ci dalal bu ñu dalal fii ñu toog waxtaan ak moom xool nan lay dundee samedi relaxam xam xam nga ni nga koy passé sax day relax me am na looy wax ak loolu wax de. ah dafa am lu ñu war a censurer foofu. <laughs> non damay tooñ. xam nga ah dama bëgg a waxtaan ak suñu mbokk yi bu baax. xam nga samedi samedi bés bu diis la bés la boo xamante ne man moom dama koy kal ci téléphone bi ak fiir bu metti nag. ak lan bu metti bu metti e bu leen jëli waaye dimbali soxna saa ngi Amérique man maa ngi fii léegi faa mooy nekk ci téléphone bi chaque instant ma ne ko foo nekk baa loolu dina sotti mais fenn laa koy woo ci léegi bi ngay gisaate boobu laa koy woo léegi de <laughs> kon kii xam nañ ne daal ku bëgg soxnaam la daf ko sori comme ni mu ko waxee ngeen ne soxna si fu mu nekk mi ngi Amérique mais mais nag mais nag du ma fiir quoi parce que wóolu naa ko waaw loolu kon baax na euh, waa à téléphone bi ngay passé noonu xanaa di nga génn quand waa di génn reer yi di génn am xarit par exemple tey am nañu am nañ ku ñu invité reer. na ñoo xamante ne tamit dañuy ñëw seet suñu ñuy waxtaan. am na ñoo xam ne xëy yàlla def na tey la yàlla di tudd suñu gisee. dinañ gisee amna ño xamanteni ñi ngi ci yoon bi di ñew ak yoy wa donc euh relax rek après tek chain waxtan nice na euh à part ça bëggoon nañu xam alune ndax yaangi def sport sport ma ngi koy def mais nak ça fait 2 mois sport ma sport ma ngi koy def waaye 2 mois sport lu tax deux mois non pas même pas deux mois parce que bima ma États-Unis ak légui yagul té États-Unis maa ngi dem fofu si gym bi euh, chaque fois di di def sport xam nga ak dama nan tox cigarette ma bayiko nak nag mu may moy grossir lo mais comme même maa ngi def euh, sama régime ak di war ni ñew ci euh, tox cigarette boobu ñu bëggoon xam Alioune lutax nga bàyyi né nga da nga bàyyi lutax santé. santé wérgu yaram lool mom ku ci yalla dindi mom da ngay sant rek bu wër <laughs> kon eh, bi nga bayé non yaa ngi lek bu baax. waaw lek yi sax lek day gëna saf. day gëna a saf. Mhm, day gën a saf saf. léegi nag ñu bëggoon a xam en matière de lek yow lan mooy sa plat préféré. fi gaay nak nag bëgguma ñu xam fi may génn luy sama feebar. da ngay ñu dimbali na ma bëgg ci bu jeun bëgg ma fi man bañuma dara. mais am naa lu ma gën a bëgg mais kooku je garde ça pour madame. léegi yow waa Allo dakaar suñu suñu la bëggoon invité tey jii. ah, ah ñuy def. waa dégg loolu moom. waa ma bëggoon invité tey jii nii. dama naan leen togg leen rek parce que nit tamit bu lay invité da xool li nga xamante ni moom la poosam attan. moom la moom la la yéene. ñun moom waa Allo Dakar allah dañu dañu am maanaa dañu am classe te dañuy bëgg suñu in invité xam nga ñu leen di teral ñu xool lu ñu gën a bëgg xam soo ñëwee ñu toggal la ceebu jën ngeen a bëggoo. comme comme man man taalibe laa man bañu ma dara lu xanaa lu saful xorom saful suukar bëgguma waaw mais comme que taalibe laa nag moom lu ñu togg rek lu lu na neex rek na saf. Euh, di nga seetaan théâtre yi daw doon ak télévision ñu bëggoon xam ban moo la ci gën a intéressé. ah xam na man ay théâtre man ay daara Kocc ak ay kii dinaa seetaan tamit ñii nii euh, ñoom saa neex. waaw dama leen seetaan. <laughs> kon saa neex ku la neex la. yii saa neex daf may daaneel. Kouthia saa neex. Mhm. yii man ñooñ dama leen a bëgg. dama bëgg Kouthia surtout Kouthia moom Kouthia moom yàlla dafa def rek bon yàlla daf ñu boole rek ndeysaan. Euh, ñu bëggoon xam aussi Alioune euh, yaa ngi def ay rasta depuis quand nga def rasta ak lu la boole ak rasta. rasta <laughs> rasta lug la rek. you know lug la boo xamante ni lug la boo xamante ni. Um, yàlla moo def mu bugg ko rek mu nekk feeling parce que man bu may woy damay damay damay fecc di woy ci xam nga di bëggale léegi nag am na ñoo xam ne feeling boobu daf leen neex feeling du fait que nga def rasta jékki-jékki xam nga am noonu na def mais look la rek look xam nga look xam nga yaa ngi def greffage kii mi ngi def ku nekk ak sa look mais man. lu la inspiré kay xam nga mënoon nga wattu rek. simplement naïsement takk say net dox pourquoi nga choisir euh, Rastay. pourquoi ma choisir ko ah xam nga feeling feeling tamit day compter. feeling da feeling bi nga bëgg mu nekk si yow day compter dem naa ba daggoon Rastay yi mais. après ma mel ni ku am dara lu ma manqué <laughs> ma de. bu nga tàmm affaire yi daal. <laughs> waaw waaw xam nga boobu dama dama dama dama dem watu. te li tax ma gën a rastawaat parce que dama dem fu ñuy watoo chaque semaine ma dem watu su watoo rek mu saxaat ma dem fu ñuy watoo mais su ma demee damay rang ma ne non xaaral ma def rasta rek ma def rasta bu jàppee xam nga rasta bu jàppee rek ça va des fois ma toog dem ci benn salon ñu defaral ma ko xam nga mu nice comme bu ma war a génn nii seen télé yi. waaw damay dem defar ko mais tey moom <laughs> tey moom jotuma ko defar. ah kon dóor ci xeer bi. non non da nga ñu dóor ci xeer yi. da ngeen ma bett ah. may ma benn lépp. <laughs> Alioune dimbali ñu xoolal nañu may benn rek. <laughs> man la lépp sax. lépp rek yow xam naa ko sa xorom. Hmm, lépp. lépp war a lépp. xam nga Cheikh Béthio dafa mën a bernde dafa mën a bernde ba nga xam ni benn bés benn nag dafa ñëw nag bu rëy ñëw rek nag toog si diggu tali bi gaa yi ñëw dàq ba sonn dàq nag bi bay bëgg a dee def lu nekk nag bi toog rek sapeur pompier yi ñëw nag bi toog rek ngan di tóoroo polis ñëw nye ñew ba ministre sax ministre bi sax ñew gaay nak bi ne ni gaay jik wut remarque def lu nek nak bi tok rek ben peul di romb rek daan ni eh, lu kew fi, ñoko nak bi de mo tok ñëpp délégation mu ne eh, nag mo moom moo toog rek bobu legi gaay di ko ki rek mu fekk ba jog ñu ne ko dee mu ne kaaram mu ñew rek mu ñew rek dee nak bi rek nak bi jog rek ñokali <laughs> nag bi jug rek daw daw yu metti gars yi ne waa kii lu mu war a wax nag bi pël bu làkk nag nii rek mu jug daw ministre bi wax ko ne ko mais viens wax nag bi ba mu daw nii comme ça te fii vraiment ñëpp ñun mu ne man kay lu mu ko yomb dama ñëw ba ci noppam la man ne ko seeg beccu mi ngi ci yoon bi di ñëw de <laughs> moye dawde na ama cheikh bi daaw na bernde na ñemewu ko gëlem ñewu ko moo taxit nag ba daw na nag bi daw na parce que li nga wax ni am na solo donc ah yaa waxoon mënoo bi saf na de bobalam bi ah bi neex na dëkku ngay ngay jaay looy looy def fii man damay taxaw nii dañ doon raxas nii parce que dama ànd ak ñu dem jënd ay mburaake ay ay ay mburaake ay kii nu mu Mm, ay uul solom. ah yooyu. mais bu ce que xam nga booy léegi xamuñu konkorong. konkorong <laughs> gëj naa ko dégg de. non xam naa konkorong bu baax nag. yow noo naan noo def konkorong noo naan konkorong quoi. ah defe naa dañ doon xocc ndox de. waaw xocc ndox waaw. ah après da ngay kii rek. gis nga waa Pikine la de. waxal yow la ñu wax yow la ñu wax yow antenne. yow Pikine nga de. léegi loo waa def loo fa def. syndicat lu ñu doon def mooy añ dem buuju wut ay xam nga rek la ay madd. mango mm-hmm. yoy xam nga affaire yu bëri ha ah. affaire yu bëri. des dem buñ dan daan jóge pikin talu tali di dem euh, geju yarax. Mm-hmm. sanika lañuy jaar mm-hmm. am ñu réglé. après dem repi barbateur. dem wuti jeun des fois aussi dañ dan dem jóge pikin tali mes dem euh, dex mew dex mew waaw foofu lañuy def defe naa bu bees bi ak mhm. stade lutteur yi dem dex meew des ñu dem géeju géejawaay yaa ngi fàttaliku xamuñu Pikine xanaa danga nga màggee Pikine waaw dama fa juddoo yaroo fa màggee fa samedi relax fans yi dama am fans club boo xam ne ñoom Sacha Guissé ñu ngi koy ñu ngi koy diriger ñu ngi koy woowe fans jam ari te sax xam moom fi maa ñoom fi ñu jëm dafa dina dina dina parce que ñu ngi ci xalaat ñu ngi toog di ci xalaat di di pare loo xamante ne peut-être mën nañ ko sax def bu dem ba def mouvement parce que nombre bi bëri na macha allah euh, am na ñoo xamante ni tamit xamaguñ ko ñu ngi bëgg a adhérer parce que chaque jour que Dieu fait di nga gis koo xamante ni di gis koo xam ne da lay bëgg mais mënul jot si yow wala xamul fu mu lay gisee wala amul sa numéro. du càggane que ne da ngay jafe ba baña gis nit ñi mais yalla rek mo mën fu nek mu mhm. mais man dama bëgg fans dama bëgg nit xana xamoo toujours damay am déception parce que dama nan man est ce que am kuma bañ man ñepp ma bëgg loolu laay you know mhm. euh, te loolu boy démé non rek da ngay noppul sa aduna euh, li mu wax am na solo waykat la di way lu neex am ñu ko bëgg mom aussi mu délo leen lolu won leen né bëgg yëga koy fay euh, li nga leen bëgg may ñëw ci non ñi ngi pare ñi ngi pare actuellement euh, ñi ngi pare actuellement ñi ngi studio mhm. di paré lo nice té inshallah ñëpp dinañ euh wa Kolda dinañ kontan, wa Tamba kontan was saint watches waa Thiès ah waa Ziguinchor ba mu daj ah Dakar njambur njambur sama goray yi. goray wa xana yi. di nga nuy goray de bu baax. wa njambur dañ day nuy senegal yeb Gambie Mauritanie xam nga sama mbokk Mauritanie surtout Mauritanie mom dañ ma bëgg trop. Masyaallah, vraiment vraiment buma duggé ci si Facebook sax souvent pour yendu damay gis Mauritaniens yi niñ ma bëggee ndax loolu dafa reuy trop ci man te da yéene bima am yalla rek moko xam <clears throat> wa Mali tamit ak sama sama ndo yi nekk Amérique euh wa Chicago. ñi ngi fi ci euh contane mom bu baax ci mom lim ñu recevoir ñu continuer waxtaan bi gaa yi nee nañ daal yow Baaba Maal numéro 2 nga nar a doon looy wax. xam nga mën nañ ne fierte la ci bu ñu demee ba man mi juddu bërki démb commencé bërki démb fekk fi Baaba Maal samay papa bu ñuy jël naa man Baaba Maal numéro 2 duñ sax wax Baaba Maal numéro 2 parce que vraiment am naa chance boo xamante ni li ma way dañ ko ràññee. te wayaatuma li Baaba Maal wayoon damay bind way mais nag boo demee ba ñu am si yow yaakaar gis ci yow euh, futur nit ku nekk kuy way kuy fubal yow mii di def euh, métier bi am na koo xool am na ci ku ku la inspiré yàlla def na moom inspiré nañu waaw yar nañu aussi parce que suñu pàpp la àndal suñu suñuy pàpp ñoo téye ci loxoom Je ko tette ko bam toll donc kon ji ni euh référence le pour man euh, influence le pour man donc euh, dama dama dama koy dama koy bégué. mais nak, y Amna talent ni yalla parce que ñi bëgg melni ni mais mënu ni mom. ñi bëgg def ñi bëgg bëri nañu waaye mun ñu ko am am na ñoo xam musique ñoom ñoo bëgg musique waaye bu musique bëggu leen mm-hmm. man alhamdulilah euh, maa ngi ciy am ñu ma sopp euh, ci wàll musique boobu laa bëggoon ñu ñëwaat bëggoon xam ndax Alioune mën na def rap nga may ñu tuuti benn bit <laughs> c'est-à-dire euh, ce que beaucoup de gens pas mooy man rap bi bi ma bi may nekk Timtimol c'était pas pour di rap mën parce que man damaa sopp musique waaw léegi nag sopp boobu laa bëgg nga confirmel ko sama mbokk internet yi nga may leen benn bit bu ndaw xam nga lu la neex rek wax dama ne min de dama ne min de min de min de dama ne min de min de somi min tan ko jam lay di so ko jam ñali ton lay di so ko jam wali ton jam ko jinmi toto casamas toto angola bisa wo. dental africa dental yo africa afrifo sorrenti mbimin noon ko bamtare afrifo sorrenti mbimi yo ko bamtare wake up wake up Africa jóg leen bala mu <laughs> waaw neex na xam ah lii lii nag moom ah, non neex na neex na. dafa am loo xamante ni dañ ma ci nome muy Chicago Music Awards. Chicago Music Awards. Ah, ma nekk le seul sénégalais buñ ci nommé mu war a. Ah, Qui bi war a euh, nomination bi wara nek le le premier juillet léegi je suis le sénégalais biñu destiné Chicago comme best African performer donc euh, may ñaan bép sénégalais bépp africain euh, sama mbokk sama mbokk ak su Sénégal ñu ñëpp mbokk lañ Mauritanie Gambie Guinée Mali you know may ñaan ñep ñu votel ma ndax ma. ndax ma ndax ma am trophée parce que ndam mhm. suñuy suñuy papa suñuy mag suñuy kilifa suñuy référence ñoom yàgg nañ andi ndam Sénégal mhm. mais ñun tey bu ñu demee ba jaar seen tànk yooyu aussi pour def loolu mhm. ah, di ñaan ñëpp jàpp si donc euh, euh, damay ñaan ñëpp jàpp si ni ci jàppee nag c'est très facile da dem Chicago Music Awards nga def point org après ba site bi nga dem ci nominate ak vote boo demee nominate ak vote mu yóbbu la ci liste yi di nga gis première groupe euh, best best artist pop ak yooyu xam ay catégorie la mm-hmm. nga dem ba ci numéro 16 mooy african performing neen quatre groupes africain ñu ngi foofu ak black américain mm-hmm. donc man maa nekk ci suuf noonu Alioune Guissé Sénégal lañ bind mm-hmm. donc boo ko cliquer Euh, mooy voté nga mais boo ko cliquer après dangay dem ba ci suufa suuf ba group yëpp jeex nga dugal sa information yëpp daal di bës lu ñu tudd euh, fu ñu bind submit mm-hmm. submit boo bësee foofu mën la thank you for voting mm-hmm. léegi nag mm-hmm. may ñaan ñëpp ñu voté parce que bu ñu voté man opportunité la ci man ci Sénégal yëpp parce que titre bi ñun ñëpp ñoo koy bokk

na ñëpp topp li mu leen wax euh, ñu voteel ko ndax euh, ndam li dellu si waat biir Sénégal. maa ngi maa ngi maa ngi bégee trop ñëw bi ngeen ñëw fii parce que artistes yi bëri nañu mais peut-être boo leen ma choisir am na lu leen séduire ci li may def donc euh, cela veut dire que ne rek yéen a ngi xool yéen a ngi seetlu parce que tey ah, Sénégal booy koñ boo jaad rek maire jaay caaf sax toog naan ni sax artiste la loolu rek tableau la waaw donc nag boo woyee ba ñu ràññee la ci nga woy ba ñu ba am cofeel boobu ba ñëw fekk si ma fii sama kër ak caméra donc loolu mbégte la mm-hmm. ma leen di gën a encouragé di leen gën a ñaax aussi yàlla na yàlla dolli kàttan bi ba ngeen dem ba nga xamante ni nañ leen dégg fu ñuy dégg télé yu mag yi waaw yàlla may leen kàttan bi may leen xam nga tal bi ak wér gudd fan mais nag lenn rek moo ko yàq ah lu koy yàq sa sant wi <laughs> nee na xam nga xam nga lu ma jaaxal gise gise yi gise gise yi bi moo yàq affaire dégg leen li wax xam nga lu tax ah. mais nag léegi Sall kenn ñemewu kenn ñemeetu leen wax leen foofu laa doon ñëw de dañuy jiite réew mi ñoom léegi kenn ñeme mais makisal, rek Macky Sall dama koy woy ba pare yobul ko saaku ñebe ak 7 kg mburu waaw. xam nga makisal, ñebe la ko yobul Macky Sall <laughs> mu lek xam nga bo xoolee biiru Macky bi yëpp ñebe la. <laughs> amala la do ñu duggal <laughs> defi tuddu Macky Sall. ya ko wax waa waa gise gise de lu wax Sall len nak mom ah? ñom ñebe rek lañu lek lekk way Macky Sall yo Abdoulaye Sall Sall yo ñu ñëpp ay Seydi Salté bam eh. dess mana yow Seydi Salté eh, nga gëna ma la ni ñu sama na me <laughs> sa mbuus bob bi nga ko génné avant nga génné da xol mu may ki dé mom tamit du xaar guddi sax mu soga def <laughs> mu kenn ko lek ci yow tamit <laughs> non Aline wax na lu am solo cousinage à plaisanterie dañ ko dañ ko dañ ko xam biir Sénégal moo waral lépp am jàmm moo tax euh, ku nekk mën a tooñ sa moroom euh, ñu nekk ay frères ak sœurs yoo xamante ku nekk ci lu baax ngay dox. allo Dakar allo Dakar comment Dakar allo Dakar.